ndax nit doomam bu jigéen bu dem sëyi te mu nekk ku ñàkk ndax mën na koo jox azaka loolu lu ci lislaam wax xaaji euh, malik euh, lislaam dafa bari sutura suñ borom subhaanahu wa taala dafa bëgg sutura waaye tamit mu bëgg rafetal buur a ngi wax naan wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin euh, ba tax na kuy joxe azaka li ngay joxe danga nga koy ëggati rek jox ko ka nga koy jox te doo ko wax ne lii azaka la wala li nàngam la dangay ngay rek jox ko yonent bi nee na innamal amalu bi niyaat wa innama li kulli imriin ma yàlla mi la ko sant ba nga génnee azaka dem di koy joxe yàlla moo la gën a xam ne lii azaka la kon jarul di fësal jarul di wax jarul di ut ay ran ku nekk di xam ne lii azaka la loolu jaru ko Euh, ndax ma fàttali ne azaka alalu jaamur la bu nekk ci sa biir alal nit nag boo koy jox alalam jarul takk ay lantinoor kon nag azaka mën nañ koo joxe te boo koy joxe ki nga koy jox doo ko xamal ni lii azaka la loolu lislaam gën a bëgg amma doom ju jigéen moom it ay waajuram duñ ko mën a jox azaka ndax dogit la ci ñoom donte que ne fi mu sëyi ñoom dañuy yelloo azaka waaye ay waajuram duñ ko mën a jox euh, azaka dinaa la wax Hadj Malick nit mënta jox baayam azaka mënta jox waajuram wu jigéen azaka mënta jox doomam azaka mënul a jox borom këramam wala borom kër gi aussi mënul jox euh, soxnaam azaka ñii mënul ñoo joxante azaka waaye bu weesoo ñii rek ku nekk mën naa jox sa morom azaka kon doom bu jigéen bu fekkee dafa sëyi fenn fa mu sëyi seen loxo jotul seen ginnaaw booy joxe azaka da nga koy jox borom kër gi waaye doo ko jox sa doom bu jigéen loolu lislaam daf la koy tere wallahu taala aalam